ça va man mag bu bala Gaye de waaw ah, Modou Lo Modou amul lu ñuy wax si moom combat bi tey la tey la def li ñuy war a def ñu def si moom xam nga nee na ñu xale màgg na ñun ñoo gën a doon xale moom moo ñu mag billaay wallaay Modou Lo na taxaw dëggal boppam nañ ko dóor barke alxuraan nañ ko dóor ba mu génn saako yi billaay wallaay préparation pare nañ si lépp si lépp pare nañ si instant alamin yàlla nañ si yàlla yóbbu si jàmm ñu génnee si alhamdulilahi rabil alamin waa supporters yi laay wax ñu dem si fair play dem def tekk seetaan seen supporter ko si jàmm ñu dal jàmm daal ñoom ñooy ay VIP daal ñoom xam nga ñee ñoom xam nga ñoom ay dof lañ xam nga rek yaa nga la xam ñun nañ dem si jaamu toog seetaan ñu def li ñuy def daan ñibbi si ñun loolu lañ xam ñun loolu suñu mbër tàmbal ñun bilaay wala kaddu gi maa ngi ñaanal Balla Gaye 2 yàlla ko yàlla may ndam si kaw Modou Lô wala